برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نينام ولا يرعق ولا تدلتني جاكا جاكا ulaayika ñu ne la gaa saabul janna ñu war a mel janna hum ñoom xaalis doon woy del lañu si aju dajalaal janna rek yàlla ñu ci yàlla boole teeweenal mooy wax laa ilaaha illallaah muhammad loolu mooy maqaama bi ci gën a mooy bi ci jëkk ci suñu yonent firi na ko mooy nga jaamu yàlla te mel ni yaa ngi koy gis ku jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis ñooñu ñooñu xéwénal yàlla dana leen jox aljanna te dana leen ca dolil de ëllëg ak tey ñi nga xam ne yéwén nañ dëgg-dëgg yéwénal di jaamu yàlla mel ni ñu ngi koy gis dugg nañ aljanna ci léegi ci àddina mooy aljanna yi ci daay yi doxoon seen diggante ak yàlla yàlla dindi ko ba dootuñu geesu dara lu dul yàlla lu dul yàlla mbugal la lu lu dul yàlla noonu la naka Ibrahima waxee nu mu àdduma bi ilaa rabbil alamin dolli leen nag xam yàlla xam yàlla moo gën gis yàlla gis yàlla gën a tebbe waaye xam yàlla gën loolu moo tax maj soo ci dëggoom bu jëkk fu muy waxee na gis na yàlla dana dem ba xam yàlla nag bu demee ba xam yàlla booba la gën a koy maqaama booba la gën fuuf waaye du tere room de ëccu dem de maqaama bu njëkk ba ba tey moo ko gënal aljanna jaadina ku ca dugg doon na ma aljanna ji nga xam ne moom la ñuy seen doole de ndax seeni xanam benn muuraay di ca nekk dara doxul seen diggante seen borom te bu dara doxul bu am bu ñu amul kiidaay bu dox seen diggante seen borom du ñu am benn jàqare ci àdduna ak àllaaxira ñooñu yàlla duñ jàq ci lu weñ duñ xalaat liy dugg ci bañ ca jàq moo tax ba ñooñu ñoo dugg aljana sax dañ koy jéem ba faaw ñuy jàpp ñu ngi jàpp ci ñetti xaaj lañu am na ñooñu yàlla ñoo xam ne dañuy jàpp ndax xamuñ li ñu na ñooñu yàlla ñoo xam ne dañuy jàpp nit xamuñ li jiitu woon ci asal ci seen mbir am na ñooñu yàlla ñoo xam ne gees wuñ la wéyoon gees wuñ lay dikk si waxtu wañ nekk rek. moom lañ sàmm xaaris doomi waxtu woom nekk la démb wéy na dootu dellu si ëllëg ñëwagut xamoo da nga ko fekkem de waxtu ñu nga nekk rek moom nga am ci sa bopp ba dee ba mu ñaan yàlla ku nekk ci loolu kooku moom mi ngi ci aljanay déeram de برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نام